Chérif Dia ñu ngi lay nuyu gërëm la sa teewaay tey ci yeewu leen bi di la souhaiter yow itam une bonne année 2016 beaucoup de santé beaucoup de succès ak euh, sunu borom bàyyi la ak sa xel ak sa doole. ngay gën di ñu euh, gunge euh, ñuy tàggoo ak kumpa ñu ngi 2016 li ñu bëggoon rek nga gindu ñu ci bokk na ci ponk bu njëkk bi débat bi jëm ci réduction mandat président am na ay kàddu yoo xamante ni wax nañu ko keroog bi muy def discours am ci 31 décembre bi waaye fi mu tollu t boobule euh, daanaka indi na coow lu bëri surtout euh, ci diggante ñi ñu tuddee ay ñoo ñooñee seen xam-xam màcc na ci lépp lu jëm wàllu constitution mais ñun askan wi lan la ñu war a comprendre euh, ci mandat bi nga xamee ni président da koy wàññeem déet pour mu nekk cinq ans au lieu de sept ans jërëjëf Pape ginnaaw bi mu la nuyoo yow it ñaanal la atum jàmm atum xéwal ak wér-gu-yaram mhm. ñaanal ko également téléspectateur émission yeewu leen bi yëpp ni nga ko waxee noonu la parce que président Macky Sall bi mu jàkkaarloog askan wi ci discours 31 décembre am euh, dafa am lum junjoon loo xamante ni daal ay ponk la yoo xamante ne fas na ko yéene indi réew mi rawatina ay révision yoo xamante ne ci wàllu institution yi la. Hmm. wante waxoon na nag li nga xamante ni moom mooy mandat bi xam nga ni en 2012 bi muy ñëw. daf na woon am na yéene moom mandat bi mu nekk mu wàññi ko jëlee ko ci juróom-ñaari at yóbbu ko ci juróom wante ci noonu ni at yi di gën a demee nag moom koroog bi mu wax c'est vrai que tuddul benn yoon wa waxu référendum waxut tamit ci anam bi nga xamante ni fa la bëgg a jaar ngir wàññi ko mais dañoo dégg ki nga xamante ni moom mooy conseiller juridique am di Ismaïla Madior Fall di professeur moom it ku xarañ ci wàllu constitution fan yi dégg nañ ko depuis discours bi mu am ay sorties yu mu def ci président de la république ni mu bëgg a def ba daal di wàññi booba boobu mandat mais nee na wàññi googu mën na koo def tant que laaju ci xalaatu conseil constitutionnel ak mhm. président de l' assemblée nationale d'accord waaw mu daal ne article 51 bu constitution moo ko wax parce que dafa jàpp ni moom fi ñu nekk nii du loo xamante ni rek ki ki cadre consultatif la man te dañu nekk ci benn cas boo xamante ni juridiction institutionnelle la maanaam décision dogal bi nga xamante ni conseil constitutionnel war na koo jël day lié président de la république mhm. maanaam Macky Sall bu jëlee tey ne am naa sama am naa yéene wàññi sama mandat bi jëlee ko juróom-ñaari at yóbbu ko ci juróomi at loolu bu fekkente ni laaj na ci cinq sages du conseil constitutionnel yi ñooñu buñ ne ko luñ ko wax moom lay def buñ sukkandikoo Euh, conseil juridique di j'ai pas compris ñoom li ñu ko wax loolu lay def. waaw li ñu ko wax. cinq sages yooyu am na yéeneem. waaw wante mais nee na buñ sukkandiku ci article cinquante bi nga xamante ni dafa ne. par président de la République ay lu jëm ci wàllu référendum ak yu ni mel. Hmm. bala def dina laaj avis assemblée nationale ak conseil constitutionnel. d'accord maanaam déci moom euh, il sera lié par la décision du conseil constitutionnel. bis bu ko nee bu juróomi sages yi bun na ko. c'est vrai que am nga yéene bi mais yoon mayu ko nga def ko bu ko defee day tënku ci. li ko conseil constitutionnel ah d' accord d' accord d' accord cest à moom moom moom mën na bëgg mandat am ci cinq ans ci cinq ans waaw waaye teewul loolu moo nekk ci euh, waaw bu waaw loolu loolu moo problème problème interprétation la foofu la nag coow li bëri ah, il faut que ça soit clair quand même il faut que mu leer ci bopp nit ñi ah. indi jiixi jaaxa ci constitutionnaliste ñii dañ ne loolu du yoon mhm. ñii ne euh, vraiment li nga xamante ni président de la république war na ko yéeneem lu war a mën a antu la mhm. waaw parce que bu buñu leen liiralee fii article bu constitution bi li mu wax daf ne le président de la république peut après avoir recueilli l'avis du président de l'assemblée nationale et du conseil constitutionnel soumettre tout projet de constitution mhm. au référendum maanaam bu fekkente ni moom bu laajee xalaatu conseil ak assemblée nationale mën na soumettre projet bi ci wàllu référendum mais conseil juridique am moom ci gis-gisam mooy day dépendre rek ci avis conseil constitutionnel parce que ñoom ñoo fi nekk ci constitutionnalité loi yeeg yu ni mel. parce que président la c'est vrai que mooy clé de voûte des institutions ak yu ni mel. Mhm. mais du lu ko neex rek def ci wàllu coppiteeg yu ni mel. Mhm. waaw mais gis-gis boobu way zëy moom mooy décider mandat bi. sept ans la normalement mm. te instant bi euh, président bi mu ngi ci couru mandat am est-ce qu'on peut s'attendre franchement ak ay constitutionnalistes ñu mën a d'accord pour président changer mandat bi en cours si si kiiwam mandat am mu changer ko def ko cinq ans finalement est-ce que du woon mbirum campagne kese non du campagne du woon campagne parce que volonté la woon parce que boo xoolee sax moom Macky Sall korop mu muy jàkkaarloog askan wi wax na en fait justement loolu la bëggoon mais je pense que dañ ko élire déjà sénégalais dañ ko élire pour sept ans loolu lañ ko élire su fekkoon ne dafa ne woon peut-être deuxième mandat mu def cinq ans mun nañ ko nangu déjà gis nañ fi 23 euh, juin touche pas à constitution la ñu wax ñu élire ko ci mandat boo xamante ne sept ans la aujourd'hui ñuy jiixi jaax ndax dañ ko def cinq ans wala wala sept ans est-ce que constitutionnaliste yi man je pense que waruñu mën a nangu loolu en fait. non du bon parce que xam nga affaire ñoom. ay sénégalais lañ comme yow ni nga amee xalaat lan amee xalaat du ñoom li ñu wax moom mooy am. parce que dernier mot bi ça revient quand ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ngir di saytu loolu muy conseil constitutionnel. ñoom ñoom lan fi ñoom ñoom ñoo am maa xam mais conseil constitutionnaliste yi ay boroomi xam-xam lan yoo xam dañuy joxe seen avis rek ci di leeral askan wi ci débat yu mel noonu. li nga wax noonu la parce que président Macky Sall dafa amoon antécédent bu fi amoon parce bi muy ñëw. dafa hérité woon euh, ki euh, Abdoulaye Wade gis nga li ko fi jële woon mooy affaire mandat bi ndax moom waroon naa nekk candidat wartu nekk candidat mais koroog gis nga bi mu jàkkaarloog askan bi daf ne am na fukki poñ ak juróom yoo xamante ni dañ ko fee samp ngir coppite ci suñ institution yi ni muy doxee ba nga xamante ni sax wàllu mandat boobu wax wax na ko parce que ci moom moom mooy ah, point six bi ci la ci la waxee ci affaire mandat beeg nin koy jëlee ci juróomi at juróom-ñaari at yóbbu ko ci juróomi at. Mhm. également naka la ñuy def ba coow loolu dootul amati Sénégal. et puis du Sénégal rek ah, on a remarqué que ci bi dëkk yi nekk ci continent bi yëpp bu ñu amee coow laal constitution. waaw moo tax parce que dafa sensible surtout mandat du lakke daal. dafa euh, sensible voilà président yi moytu ko. du la population surtout mandat beaucoup de polémique dans presque beaucoup de pays d'Afrique. surtout mandat présidentiel parce que boo xoolee fu mel ni Rwanda. waaw Paul Kagame changé waat na constitution bi ñu ci bëri mais. constitution constitution ko ci bëgg a laal réccu nga ko. réccu nga ko quoi parce que ah, askan wi ay Burkina Faso. ay yoonu mel non parce que. Hmm. citoyen yi ñoom it yeewoon yaa ngi wax ne c'est président moom. mais bu fekkante ni loolu am na ku mel ni hmm. professeur Abdoulaye Dieye moom àndut ak Ismaïla Madior Fall ci hmm. gis-gis boobu parce que dafa jàpp ni bu dee volonté la moom président de la République moo ko mën invoqué dem na ba invoqué ni moom li mu wax mooy bu fekkante ni initiative constitutionnelle dafa ne initiative constitutionnelle bi président de bon c'est vrai que moom moo koy moom moom moo koy wane mais lu foofu tamit il faut mu jaar laaj xalaat ñi nga xamante ni moom mooy conseil constitutionnel wala assemblée nationale. mais terewul moom dernier mot bi moom la revenir parce que moom moo yor boobu initiative. donc gis-gis bi foofu la nekkee ci wuute gi nga xamante ni wuute nañ ko ci naka la président war a jaar pour soppi ko ñi naan voie voie parlementaire ñi naan voie référendaire. mais bu fekkante ni loolu tamit le dernier mot dañuy xaar conseil constitutionnel moom ban gis-gis la war a joxe. léegi léegi à quoi peut-on s'attendre sachant que su fekkee. cinq ans élection présidentielle yi 2017 la war la war a doon est-ce qu'on aura assez de temps pour préparer ko. lan la ñu war a mën a xaar instant bi waaw loolu la moo tax bon moo tax regret bi ñu doon def ci wax nañ ko daal ci ci discours bi moo doon bu fekkante ne waxoon nañ ñu par exemple bi a xam calendrier euh, yoon lañ war a jaar wala moom koroog ci discours bu leerooloon ci askan wi mhm. donc li woon ne supputation ak coow li mooy koroog ci discours bi waxutoon ne fan la war a jaar ak kañ la amal référendum bi war a war ne ñu wàññi mandat bi loolu suñ ko xamoon mhm. dinañ xam ndax dañuy dem élection wala déet mais su ko suñ ko xamul nag moo waral doom coow li di wéy ak tamit ñuy nokk di xaar dogal bi nga xamante ni conseil constitutionnel na koy jël. voilà loolu euh, mooy lu ñu mën a comprendre ci débat boobule en tout cas constitutionnaliste yi ku nekk yaa ngi waxe boor fan la wànnent di mujjee ki gëtëm euh, ñun ñu ngi seetaan de toute façon askan wi ñoom euh, fi mu ne dañoo yeewu. population bi kenn dafatul ñun li ñu arrangé parce que ñoo fi tekki président ñoo fi teg njiit yi donc ñoom ce serait quand même bien ñuy gën di sóor bi arrangé wul dootuñu ci dox bu weesoo loolu euh, ñu wax ci classement wu Sénégal jëm ci dëkk yi gën a démocratique dëkk yi gën a am démocratie euh, ci classement bi Sénégal mu ngi ci jël 64e sachant que euh, dëkk yi nekk ci àddina yëpp lañ ci boole loolu itam ban jàngat nga ciy def Chérif. waaw parce que téeméeri réew la ak fukk ak ñett yi mhm. ñoo doon bokkoon ci classement bi benn ONG autrichienne mhm. moom moo def boobu classement ñu koy wax démocratie Wenging Association mhm. ñu ngi nekk fële ci Autriche liñ gis mooy Sénégal boo xoolee ci Afrique moo nekk quatrième réew bi ñu jàpp ni am na démocratie bu Île Maurice weesoo Ghana weesu ak nami Namibie donc Sénégal à part ñetti réew yooyu moom moo nekk ñeenti réew bu tegu ci ñeenti dëkk rek a ko raw ñeent ñetti dëkk ko raw Sénégal ci ci waaw muy réew yoo xamante vraiment loolu moom amul sax naa table ci wàll démocratie mooy ay Île Maurice hmm. dëkk bu ndaw la mais démocratie dafay dox Ghana également ñoo bokk suñ su sous région bi hmm. CEDEAO mais ñoom it ku ne xam na ni am nañ ay avancé alternance yu bëri mhm. li fa am si alternance sax amagul déjà moom fii mhm. Sénégal ndax ci wàllu démocratie Namibie également ñoom ñi ngi nekk fële ci Afrique australe mais ñoom ci wàllu démocratie avancé na si mhm. mais critères yi nga xamante ni boobu ONG autrichienne def na ko bokk na ci droit yi ndax réew moom dañuy respecté ak ak ak nit ñi liberté yi bu fekkente ni tam droit civil ndax dañ koy respecté mhm. également lii di égalité homme femme ndax ñi ngi yemale góor ñeeg jigéen ñi mhm. yooyu également ay critères loo xamante ni liberté de la presse également ndax journalistes yi am nañ sañ-sañ bind wax seen xalaat te kenn du leen gàllankoor kenn kenn du leen indi ay jafe-jafe mhm. wax nañ aussi indice de perception de la corruption ndax ger gi Sénégal euh, am na fa wala déet bon c'est vrai que Sénégal boo xoolee sax ñu waa transparence ay forum civil dañuy rafetlu mécanisme yi ñu teg ngir xeex wàllu corruption yu demee ni kay OFNAC ak yeneen yoo xamante ne ñi ngi fii ngir xeex yooyu xëy na loolu aussi ay critères yoo xamante ni bon ONG bi tenir na ko en compte ba génne résultats yi ndax euh, période bi également définir noonu ko entre 2013 la ak 2014 moom moo tax bon ñu muy lu am solo mais warul tax ñu dormir sur nos lauriers parce que ñeenteel la mais Sénégal war na dem ba pourquoi pas bokk ci pays yi koy xëccoo. na jël pays parce que boo xoolee chaque année classement yi dafa révélé waat ni pays scandinave yi ñoom toujours ñooy jiitu ci côté bu dee ci wàllu yoonu wu rafet wàllu démocratie. muy ay Suède ay Finlande ay Norvège. ñoom moom lu ñëw. Danemark c'est des pays libres en fait. waaw waaw foofu moom c'est vrai démocratie bi dafa doy waar. foofu trop lu ñëw moom même boo xoolee classement yi. liberté de la presse pour la plupart ay ay buur la ñu am ah. voilà c'est vrai euh, boo boo seetee ba ca biir. ay buur la ñu am régime parlementaire justement mais dañu am régime parlementaire c'est vrai que ay kii lan ay monarchie la mais. monarchie dafa am régime parlementaire boo xamante ni daanaka mm. dogal ya lu ci bëri buur bi am na ci kii mais. lu ci bëri pa député yi ñoom ñoo koy jël te askan wi ñoom ñooy fal yooyu député muy loo xamante ni bon c'est mm. vrai classement bi am na solo mais bu mu tere ñu tëdd doon mi suñu loo naagu quoi mm-hmm. nañ dem jéem a xëccoog yooyu yow jël am démocratie ndax tamit ñun ban commencé voté fii ci Sénégal yàgg na donc mooy li wax débat dem mandat yooyu waroon nañ ko passé fii Sénégal ko dépassé jëm ci bi am jëm ci euh, wàññi teg euh, mandat euh, keroog bi muy def discours am 31 décembre ci guddi ponk bi ci topp nga expliqué ko léegi jëm ci place Sénégal ci classement classement boobulee jëm ci wàllu pays yi gën a am démocratie ci pays africains yi Sénégal jël ci quatrième euh, ci euh, pays yi nekk ci àddina yëpp Sénégal jël ci soixante quatrième euh, ñu ngi lay gërëm bu baax Chérif Dia et puis on félicite encore ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk léegi rédaction bu télévision fu ci Futur Média ah ku ci mel ni Barka ak Abdoulaye Der en tout cas on yan bi dina gën a metti parce que ni ñuy gën di dem ñuy gën di soxla ay xibaar loolee tax na rédaction bi gën di góorgóorlu en tout cas wane ngeen seen bopp ci 2015 bi mmh, on espère que ci waxuma la mais yéen aussi waa yeewu leen leen di féliciter parce que gis nañ sondage yi bi mu génnee ne bokk ngeen bi gën seetaan émission matinale yi donc leen di encourager 2016 bi aussi di xaar mhm. yeneen surprise ak lu ngeen ñuy proposer ñu gën cee bég ci professionnalisme bi ak tamit teel jàmbaar gi ñu leen di ñaanal bu baax waaye amin waay ah bu bu ngeen ñu ñaanalee ñaanal xale yu baax waaye